li ngay seet moo nekk noonu à gauche moo yor ngeen lu rouge li am dossard bu vert bi Aïcha Sambala numéro 2 Sambala numéro 2 Aïcha Koulibaly grand combat bi na ngeen préparé grand combat bi na ngeen préparé Seigneur mbokk yi neuvième combat de la soirée Mbaye Sembi Sabala numéro 2 Sabala moo ñu woon Sabala door na léegi Mbaye Sembi Sabala Sabala moo takk moo sobu bi ci bopp bi Mbaye Sembi Sabala. Sabala numéro 2 Mbaye Sempi taxawal eh jël na tànk ba Mbaye Sempi jël na tànk Sabala bàyyiwaat na ko Mbaye Sempi Sabala Sabala Mbaye Sempi door na ko Mbaye Sempi Sabala Mbaye Sempi buy door du xool. day gëm rek sànni ay coup woowu est Sabala numéro 2 Sabala Sabala numéro 2 mooy dox ci kaw Mbaye Sène bi ko Sabala numéro 2 Mbaye Sène bi. Sabala numéro 2 Mbaye Sembi Sabala ngay dóor Sabala ngay dóor mu daanu Sabala ak Mbaye Sembi Sabala dóoraan na Sabala ngi ngay dóor Sabala Mbaye Sembi Sabala Mbaye Sembi Sabala numéro 2 ak Mbaye Sembi jël na ko eh Mbaye Sembi mbaa du ko sembi Mbaye Sembi mbaa du ko sembi jël na Sabala fàq ko daanu na mu daanu mu daanu ah affaire yi na suuf nañu déglu abidi nañu déglu abidi simpi daan na sabala